toog ak ki amul alal wala ki amul cër bu mel ni bi nga am bu ko defee ñu bëgg yenent bi wutal ab jataay seen jataayu bopp ñoom borom alal yi wutalit ñi ñàkk amuñu dara seen jataayu bopp maanaam daal classifié leen ñu nekk ay classe noonu lañ gisee woon yëf yonent bi xér gu mu xér nag ci bëggoon ñu dugg ci lislaam ndax xam na ne bu ñu jógee ci lislaam mën nañ cee dugal mbooloo taxoon léeg-léeg mu jox leen cër yu mel noonu waaw waaw loolu yàlla yedd na ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala tatrudi alladina loolu aaya jooju looloo ko wàcce woon wa anta laa tanaalu minhu wayxaka ila alladi qaddarahu allahu laka ne yow yow mi miin ak baaxoo bokk ci gaa yi nga xam ne yëkkati borom alal day seen aada ne ah <laughs> loo ko yëkkati yëkkati dey doo am ci moom lu dut la yàlla dogal ci yow rek waaw képp du tax mu jox la leneen lu bokkut ak sa wërsëg wala sax léeg-léeg du la jox dara wa xubbuka almatxa maa ixtiraari bihi wa buxdu zammi xawfa alaari min shiddati aljahli maa alsafaha wa qillati alzakai wannabaha mi ngi wax ci jikko yi nga xam ne ba tey jikko yi yenn ci nit ñi ne nit ñu suufe ñu ñàkk solo ñi boobu bëkkal matax baax tiraari nit koo xam ne fu mu toll daa bëgg ku koy tagg rek moom daal fu mu toll rek mi ngi bëgg ni ñu naan ko yow a yow loolu rek la bëgg baax tiraari bii ànd ak nag xam na ne liñ koy taggee sax di ko ko wax dañ koy nax waaye du dëgg nga nit boo ko waxee lu nekk ci moom ak lu nekkul ci moom xam na waaye tagg daa neex bu ko defee lu ñu la wax rek dangay dem ba yàgg nga gëm say nax wa bux du bux du zammi aari ak bañ ku la ŋàññi ngir ragal kersa ak yi mu ne bëgg ku la tagg lool ak bañ ku la ŋàññi lool nee na loolu fu muy bàyyi ko lu koy teg nit min shiddatil jahli réer moo koy teg nit nit ku réer dëgg dëgg dëgg dëgg moom lay dal feebar boobu maa safaha ak xel mu manqué koo xam ne sam xel dafa manqué foo gis ku bëgg aw tagg ba ëpp ragal aw ŋàññ ba ëpp ba nga xam ne léegi day mel ni nit ñee koy conduire nga xam ne dootu am liberté dootu moom boppam en fait nit ku mel noonu du am liberté ndax dootul def loo xam ne ci coobareem la ndax moom léegi mi ngi xool rek lu mu def ba nit ñi yëkkati ko walla lu muy def ba kenn du ko ŋañ loolu wax dëgg yàlla ak réer la xel mu gàtt la wa qillati zakaahi wa ba ak ñàkk yeew waaw ñàkk yeew rek ne ñaari jikko yooyu kooku ñu gis ci moom rek jàppal na yeewu fa man yada yaqinahu limal wara yazunnuhu fii fa xumrun zukara koo xam ne li la wóor ci sa bopp nga xam ko li la wóor ci sa bopp yow xam nga sa bopp xam nga loo loo am xam nga loo amul li la nit ñi di wax li ciy dëgg ak li ci lu dëgg yépp xam nga ko am nga ci yaqin nga bàyyi la la wóor ci sa bopp ba noppi la la nit ñi di wax nga gëm ko nee na kooke fa xumrun ab dofa ngoog ku mën a doon zukara dof wuy nelaw ñàkkam xel ba noppi di nelaw mais foo fekk ku mel noonu yow xam nga sa bopp ba noppi li nga xam ci sa bopp mu wóor la li la nit ñi di wax gën laa wóor ci li nga xam ci sa bopp loolu ndof mënu ko feesu yow li nga xam ci sa bopp téye téye ko rek waaye nit ñi moom li lay wax li ci ëpp loolu dara leer dara wéru ci wa ruyatu lfadli ala xayrika ya axi ya axi min aqbaxil uyubi fadriya mu ne gis ne diw sàngam nii maa ko gën maanaam toog ba yàgg daal nga xool sa bopp daal ne ah diw mi daal amul solo kii daal maa ko gën waaw min aqbaxil uyub defa yu gën a bañ Sëñ Tuubaa na defa yu gën a bon ci kaw suuf mooy defa xeeb nit yi sa moroom nga xeeb ko ngir lan benn nga xeeb ko ngir la ngir yi xew yi am ci àdduna rek xeeb nga ko ngir sa juddu maa ko gën juddu foo ko teg te woo ko fenn waaw inna akramakum inda allahi atqakum inna akramakum inda allahi atqakum yàlla loolu la wax kon kay boo ko tegee foofu teguwuf maa ko ëpp alal loolu it amul benn solo alal moom ker la goo xam ne day dikk ka dem maa ko ëpp xam-xam xam-xam bi moom boo ko jëfewut amul la benn njëriñ dalay alag xam-xam bari la ko lool ngir rekk bëgg ñu ne yaa fi daq jàng amul solo jëfe gi li nga ciy jëfe rek moo la amal njëriñ waaye bari gi moom amul la benn njëriñ waaw waaw wa suu zannika ma amrin faaltahu min an nuqsaani waaw ñaaw njort ci sa jëf maanaam jëf ba noppi ñaaw ci njort walla jëf ba noppi yéem ko ba jàpp ne jënn jëf gënu koo rafet waaw nee na jikko boobu ki ko yor ku matadi la waaw di jëf ba noppi di ca ñaaw njot mbaa jëf ba noppi di ko yéem ngir baax gaag rafet ga nee na loolu nit ku matut lay dal waaw boo jëfee ba noppi daal bàyyi nag yàlla dëgg la nag bul yéem jëf ji lañuy bañ bul ko yéem waaw rek moom rek dañ ciy bañ wa misluhu istiqbaaxuhu min gayrika wa daari kullan bittihaami nafsika ba tey nga jëf ba noppi keneen dikk nga jàpp na jëf ji ju baax la am keneen ku dikk ñaawalal la ko wax la ca critique ko wax la ci yu ñaaw nga gëm la mu wax waaw ba tax jëf ji yow ci sa bopp nga jàpp ne baaxul loolu it ci wàññiku la bokk mu ne nag yooyu lan mooy ordinance bi lu koy faj wa daawi kullan bittihaami nafsika moom daal li ngay fajee yooyu ma wax yépp mooy del tuumaal sa bopp rek foo toll daal yow tuumaalal sa bopp rek ci ne man daal xam naa ne maa matut rek li ma xam naa ne ni ma ko digalee defee ko ni ko bëggee mënee wu ma ko ni mu ko bëggee itam maanaam di tuumaal sa bopp rek foo toll daal bul yéem sa bopp mukk mooy tax sa jëf jooju yàlla yàlla matal ko wa axsini zanna bihim maham biha awaaqiba awaaqiba nafsi ila yowm alqiyaama mu ne na rafetal sa njort ci doomu aadama yëpp bul gis kenn ba ñaaw njort ci moom waaw donte fa ñuy mujj ëllëg xamoo ko maanaam ndax fa ñuy mujj ëllëg nit ki mën nga koo gis tey jii mu nekk sàmba booy di def lu ñaaw di def lu bon même sax du yàlla waaye fa muy mujj ëllëg xamoo ko yàlla mën na nit ci njëlbéenam mu am nu mel di am ay rëcc rëcc am yu bon yu muy def waaye la am solo mooy alxaatima fa muy mujj yàlla mën naa dem ba ci ak mujjam suñu borom baaxal ko mu gën ñépp nit it mën naa njël bennoo baax lool ba ñëpp di ko yéem xaatima ba moo ci am solo mu dem ba yàgg mu soppi te kenn xamut nag sa mujjug bopp ak mujjug kenn kon nee na koo gis rek rafetal ci moom njort waaw وداوي تسفيفا مع التواني والغفلة والإصرار في الزمان nee nag maa ngi lay bëgg a wax euh, ñetti jikko yi tardel doomu aadama nga xam ne ku tardé ba égo fenn rek moo la ko teg kuy jàng sam njàng sottiwut loolaa la ko teg kuy wut dara amoo ko ñett yooyu la ko teg ku say morom raw ñett yooyu la ko teg ñett yi muy bëgg a wax koo gis mu tardé ci àdduna rek ñett yi moo ko tardé taswiif mooy loo war a def tey walla loo war a def léegi ci waxtu bi nga ne naa xaar ba ngoon naa xaar ba suba naa xaar ba gannaaw suba bari na ku tardé eggut fu jëm loo feebar boobu ko dal nit dafa war lépp loo xam ne war na koo def ci waxtu wi mu ko war a defee bu jotee rek bum amati soxla ci leneen lu lool waaye bari nañu ku tardé te feebar boobu ñuy wax taswif moo la ko teg lu ne rek heure am jot nga nga nga tayal rek ba defoo waaw boo dajalee loolu lu ne nga ne naa ne bëggoon daa nekk ba suba te ngoon dafa am loo ci war a def suba it am na loo war a def nga bëgg a boole yooyu yépp ci benn waxtu doo ko man du sotti kon daa ut taswif yéen waxambaane yi surtout yéen xale yi na ngeen ko xam te loolu bari na xale yu bari yu tardé moo leen tardé waaw xale yu bari maa tawaani tawaani it ci feebar yi la bokk mooy nit koo xam ne li ngay def doo gaaw def ko ca waxtu wa nga ko war a def moom itam lu may daanaka rek mook taswif ñooyam loo war a def ci benn waxtu nga def ko ci ñaari waxtu wala ñetti waxtu loo xam ne mën nga gaaw def ko léegi mu sotti waaye ngay yéexamtu ba daanaka rek du sotti sax ba wutul moom it ci feebar yi dal ñu bari rawatina ñi nga xam ne ñooy jeunesse bi ak xale yi waaw ndax loolu yi muy wax yëpp nit ko tayal nit ku tayal lay dal te gone nag moom warut a tayal moom mag sax warut a tayal waxuma laa gone gii doon a jóg yi ko war ci àdduna bari lool responsabilité yi nekk ci kanamam bari lool kooku jikko yooyu jikko yu ban yooyu waru ko am jikko yooyu waru ko am loo war a def rek bu waxtu wi jotee def ko loo war a def itam boo koy def gaawal si boo ko mënee def bu bu fekkee ci waxtu nga ko war a def boo ko mënee def ci lu yées waxtu sax def ko waaye bu fa nekk di yokk ko gi di ñàkk fayda ba daanaka waxtu woon ko waroon dépassé wal la ak sàggan nit ku sàggan sàggan nag moom dana yéesu ko mooy nit koo xam ne dara ñorul la rek mooy nit koo xam ne dara dara dara ñëlu doo ko gis mu am jiddiya mukk maanaam lu mu dugg lu ne du ci am fayda nekk ca mu sotti bu tàmbalee bàyyi ma ngay wax ak kee ma ngay def ak kee ku dikk rek mën naa bàyyi la mu doon def bu sonnee bàyyi bu gëmmantoo bàyyi bu nit dikkee muy wax ak moom bàyyi la mu doon def loolu mooy xaf la musiba la nit war na am jiddiye bu toll ni lépp loo ne te nekk ca benn doomu aadama wala kenn ku yàlla bind wërta dikk ba tax loolee nga ba ko loo ko ruus bu egsee itam ne ko ah, sëñ bi nga may ma damaa nekk ci ci bu may fekkee mën naa toog xaar la baax na bu mën a dem ba beneen ne baax na waaw te nag fayda jooju moo jafe ak a jafe ci nit rawatina ci xale yi ndax ndeysaan am na ci ñoo xam ne dañuy dañoo ragal ku leen mere ba daanaka lu mel noonu duñ ko jikko yu mel noonu duñ ko jikko waaw euh, kon ñetti jikko yooyu boo gisee ma di taxaw lu yàgg dafa mën a yàqal nit ci wàllu diineem mën a yàqal nit ci wàllu àdduna kuy yar nit war nga koo fexe ba yar ko ba ñetti jikko yooyu nga génne ko ci moom boo ko ci de génnewut ci moom bay ba nga bañ a sonn ci moom da sëñ Saliou waxoon rek nee na woon yetti jikko yi ku ngeen ko séen ci moom bay ba ngeen tegg seen loxo ci ñoom maa ngi koy wax toujours bis mu ne ma wax nee na nit boo gisee mu bari xuloo dàggasante werante biddanti ne ñetti jikko yooyu koo ko gis ci moom nanga xam ne du raw kenn te du dab kenn ku ko raw yàlla na yàlla musal ci loolu ku dul raw kenn doo dab kenn foo ñëpp maar de taali ñee ñetti jikko yooyu koo ko gis ci moom na nga xam ne du raw kenn te du dab kenn waaw kon yooyu jikko war kan ku ne war ngaa xool ci sa bopp ba xam am nga ci benn mbaa yëpp ci yow nga xeexak sa bakkan def effort bu rëy pour dindi ko te lu ma jikko mboolem jikko ju nit nekk ci nit nit mën na koo dindi ah bu leen yaakaar jikko yi des ko mënta dindi bu fekkoon ne jikko mënees ko dindi kon tarbiye jarut ñu di ko def nit tarbiye bu ngeen gisee ñu di ko def nit mooy jikko yi nekkutoon ci taxalli wa taxalli ak taxalli wa taxalli maanaam li nekkoon ci yow lépp ñu dindi ko ci ay ayib maanaam def ci yow jikko yu baax yëpp loolu mooy at oo taxal taxalli mooy mooy tarbiya xale bu ndaw bi mag mi li taxoon nit yàlla yi daan yar nit nit day dikk indaale ay yu bari sëñ Tuubaa mel melo yu mel ba nga xam ne dañ naan kii mënatul am njariñ mu defar ko ba mu gën ñëpp mu defar ko ba mu gën ñëpp yambar moo xam ne nattoon a jëm fenn dikk jox boppam sëriñ bi sëriñ bi defar ko ba mu ba mu ba mu gën a foog ñëpp ëpp ñëpp iti kon nit jikkoom mënees sa koo defar waaw jikkoom ne sa koo bu yàqoo ne sa koo réparé waat waaw nañ ma baal léeg-léeg danaa wax ay baati tubaab jubluwuma ci bëgg tubaab de damaa xam jamono ji am na baati olof yu bari yoo xam ne boo ko waxee xale yi ko te li may wax bëgg ko jariñoo tax ma wax baat yoo xam ne wone sa dégg wolof moo tax nga di ko wax waaye boo ko waxee xale bi nga xam ne moom déggut wolof lool du ci jëriñu loolu yaa ngay sànni say wax kon léeg ma am baat yoo xam ne loolu laa ciy jub bil fikri min adabihi al alimi gadan wa fi naimihi al muqimi waaw yooyu yëpp nag nit lii tax mu war koo wattandiku eh, moo xam ci jaamu yàlla la moo xam ci leneen ngay taswif di tawaani di xafla ne ngay xalaat ci mbugal mi yàlla wax ëllëg yowmal xiyaam ne dana ko teg nit ngay bàyyi xel loolu leneen dana tax yooyu jikko yooyu yu bari jikko yu bon yooyu yëpp nga fexe ba mën koo dindi ci sa bopp bu fekkee yaa ngi xalaat loolu annahu laysa bizil xaflati an jamia ma nafalu sirran wa alan nga xam ne yow boo sàgganee it yàlla moom sàgganul li ngay def lépp amu ci lenn loo xam ne nekkuñ di ko enregistré yàlla nga koy bind ñu ngi koy bind du ci fàtte dara yow boo sàgganee it na nga xam ne yàlla moom malaaka yi mu jox ñu war a bind kenn sàgganu ci wa mu annahu muxaasibun ala alfatil wa laysa yatruku kasiran aw qalil na nga xam ne loo mën a def yàlla dana ko comptabiliser ëllëg yomal xiyaam loo mën a def rek yàlla dana taxaw comptabiliser ko seet ko moo xam lu tuuti ba toll ni fatil waxoon nañ leen lan mooy fatil ci bind yi weesu wala si yatruku kasiran aw xalil yàlla du bàyyi lu tuuti ak lu bari lépp suñu borom dana ko seet dana ko comptabiliser ba tey bokk na ci feebar yooyu li koy fajit gannaaw boo bàyyee xel ci yàlla ci yooyu lam tadri hal tabqa ila gadin wala taqdir wala taqdiru zaaka al yawmi fiihi fa ajila ne yow mi nga xam ne danga feebar yooyu dalaa dal muy feebaru taswif naa xaar ba suba naa ba ngoon yow mi nga xam ne looy def lu ne doo gaaw def ko yow mi sàggan li nga koy fajee mooy yow mi naan naa néeg ba ngoon maa nekk ba suba xamu danga fi toog ba suba xam suba dana la fekkam déet lu la garantil ne la bu danga da da nga dund ba suba kon te li nga war a def tey nga def ko rek wala taqdiru za kal yawmi ndax boo ko fekkee woon it boo toogoon ba suba nga fekke ko ndax kàttan li nga am tey ba mën ko ndax suba am nga garanti ne bu subaa da ko mën wala jot gi nga am tey jii ba mën a def lii nga mën a def tey ndax bu subaa danga am jot googu Sëñ Tuubaa ku mën a jàngale la gis nga yii yëpp leen lu ci nekk gàllankoor bu la nar a dikkal rek dina la ko wax kon faa la yow mi sàggan wala yow mi nga xam ne looy def lu ne danga koy yeexe ba mënoon koo def ci waxtu de ko def ci ñaari waxtu wala ñetti waxtu ne del gaaw ci lépp looy def fa tarku kasbin liddiaa tawakkuli ma altifatin filu xumrin yanjali injala waaw ne nit koo xam ne nee na man daal naa toog rek yàlla dana ñëw waaw mooy li daan dal lenn ci doomi soxna yi bu njëkk doo liggéey doo ñaq doo bay doo gor doo def dara waaw nit koo xam ne amoo ma ci Sidna Umar bu Xattaab wax ne bu ma xool danaa xool nit yéem ko bu ma laajee ne lu muy liggéeyee ñu ne ma amul liggéey nee na ni muy wàccee ci sama kanam ba nga xam ne dootuma ko bëgg a xool maanaam ni may ñàkkee fayda ci man du ma ko mën a xoolati bu ma laajee nit ne luy métier ñu ne amul benn métier moom daal bu xëyee dana nelaw ba dix dana nelaw ba midi waaw bu añ jotee dana dem añ bu reeree mu reeri fële loolu daal mooy liggéeyam amul métier waaw loolu lépp kat ñi koy def am na ñoo xam ne la tax ñu di ko def mooy ne ñoom dañoo wàkkiirlu ci yàlla walla dañoo wàkkiirlu ci barkeb sëñ bi sa baay sama baay wala sama maam déedéet même sa barkeb baay ak sa barkeb maam waroo ci wàkkiirlu tëdd na jaaxaan déedéet déedéet bu ngeen gisee dénkaane bi sëñ Tuubaa dénk sëñ Fallu dafa waxtu wi moo moo ci xajut waaye kon danaa ko indi waaw daf ne ko bul bul nekk nit koo xam ne danga nga naan sa diwéy sama maam diwéy sama baay rek wàkkiir loolu loola toog jaaxaan déedéet ne ko bokk ci ku baax mi ngi mel ni ab caru ab garab car yi nekk ci garab gi nee na car yi nekk ci garab gi car boo ci xam ne dem na ba naatatul amatul meññent nu ñu koy def bu woowee ñu ne ko dagg mu ne ndax dañuy yem ci dagg mu ne déedéet dañ koy taal daf ko mat te ci garab gu baax la bokkoon noonu it la doomu aadama meloon laysa al fata man yaqulu al yawma kaana abi waa ja dëgg-dëgg du ku fi nekk daan sama baay sama baay sama maam sama maam déedéet nee na kooku waaje inna al fata man yaqulu al yawma ha ana man maa fi def lii sama baay def na fi lii jàngal na ma ko waaye man it maa fi def lii kookaay koy waaj nee na kooku mooy waaj ki nga xam ne fekk na baayam tabax teg fondement yéegal moom itam mu dikk teg ca mu jëm kaw waaye dikk rek sama baay fi defoon lii déedéet sëñ Tuubaa de bëggul nit ku mel noonu waaw nee na dëgg mooy kay wax man maa fi def lii bu ngeen jàngee naa jox ko daal xaaj ciy wax yooyu yëpp ci biir maa iltifaati fi'lu qumrin yanjali nee na bàyyi yow nee nga da ah tëjal sa néeg te tëdd rek bul téléphoné kenn bul wax ak kenn wàkkirlu rek ba xam yàlla dana taw xaalis wala mu taw wurus fekk la fi waaye nee na nag bi ci yées mooy woote ne da ngaa wàkkirlu ba noppi nag foo toll sa xelan ci nit ñi jël sa téléphone te ma laaj diw boo xam dina mën a kii dimbali ci daraam de foo toll rek waaw loolu du wàkkirlu ku wàkkirlu kay da ngaa war a toog rek waaw toog xaar yàlla lu dikk baax na lu dikk tit baax na waaw fa tarku kasbin lidda at tawakkuli ma altifaati te teewul yaa ngi geesu nit ñi fi al xumrin nee na loolu jëfi dof la loolu jëf jëfi dof la bi yëfi bi yëfi nit allahu akbar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 الخيل bi محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفعة واعلم بأن الكسب لا ينافي توكلا لا تك ne xam ne am métier di liggéey di ñaq dàqante wut ak wàkkilu yàlla nit xëy dem fab goppam dem liggéey wala mu fab martoom dem liggéey wala mu xëy dem defi dara ci marché ba ne loola dàqonte wu tëg fab sa mbir jox ko yàlla jotewuñ dara dàqonte wu tëg mu ne laal wàkkilu mooy lan xasbuka min tawakkulil alla tara mujriya risqika siwa rabbil wara wàkkilu daal boo ko bëggee xam mooy na nga xam ne nanga nga gis ni rek kii yor sa wërsëg kenn la te mooy yàlla maanaam booy liggéey ak loo mën di def jàppal ne li ngay am lépp yàlla la ko jox liggéey bi sax joxuloo loolu sax daal loolu daal mooy wër mooy mooy mooy mooy wakkil wal afdalu aljamcu li haadayni maa wa in ata fihi xilaafun sumia ne li am li gën nag mooy nga boole kasbu ak wakkil donte borom xam-xam yi andi nañ ci ay woote yu bari ñu ngi yem foofu tey ba suba ak jàmm incha allah waaye ci buntu tey bi ay buñ ko résumé am na solo lool euh, ndax wax na ci yu bari yoo xam ne ay défaut la yoo xam ne nit ñi nit ñu bari défaut yooyu kenn ku ne Masaalikul Jinaan li ma leen koy waxee mooy kenn ku ne buy wax da ngay defe ne yow lay wax dangay dem ba defe ne sax kiy wax yow lay gaaruwaale dangay ngay defe ne ki koy jàngale yow miim jàkkaar lool yow lay wax ndax da laal dalay laal bu baax loolu nag mooy xam-xam moo tax euh, muy téere bu am solo boo xam ne nit ñi war nañ ko gën a xam nit ñi war nañ ko gën a jàng ndax nit moom lu koy won defoom rek moo gën ci moom waaw xarit bu baax sax bi lay won sa défaut moo gën ki nga xam ne bët bu set mu di la jëy masalit nag moom li say défaut la lay wax ba nga xam ne yow lu ñuy wax rek da nga xamal sa bopp la nga ca am lépp waaw boo jógee muy feebar boo xam ne xam nga sa feebar boo demee bu fekkee am nga fulla boo demee jëm koo faj waaw barab bi nag ay duruus a ñu di ko def bëgg nit ñi jàng loolu rek moo tax ñu bëgg ku fi jógee jëlee fi dara waaw ki ko jàngoon fàttaliku ko ki ko jàngutoon xam a ah, man de jàng gi ma koy jàngale nii dëgg-dëgg dama koy jàngaat man maa ngi jàpp ba tey jii may wax ak yéen ne jëmmi téere bi man dégguma ko man li ma jàpp ba fii may wax ak yéen maa ngi jàpp ne téere bi ba léegi si dégguma ko man bu ma gisaatoon ku ma ko jàngal joxaat ma ci ay mafahim danaa dem jàngaat ko ci moom incha allah ndax xëy na ba ma koy jàng gone la maanaam ci ngone nga ko jàng te téere bi bu fekkoon na dañ koy jàng ci doxinu jamono tey ci wàllu école de su ko jàng ci primaire te nun jamono yi ñu koy jàng booba ñu ngi toll ci ku toll ci primaire donc bu boobaa doo ko dégg ñi ko jàngoon ñëpp ca waxtu yooyu dégguñu ndax li ma leen ciy wax mooy maraaja yi nga gis sëñ bi di ci tudd da nga gis mu tudd ci Cheikh Ahmad Tidiane Abdul Qadir Jeylaani Imaamul Ghazali ah Junayd Yadaali ñoo ñëpp danga nga gis mu leen tudd waa tudd yooyu masaadir yooyu mu tudd da ngaa defee da koy tudd noonu rek pour nga xam ko déedéet dafa bëgg nga dem jàngi téere yooyu seeni téere ñoom moom ñooy ay masaadiram demal nga jàng ndax way wi way yi du la jox lépp ba ba mat way mënu laa jox maanaa ba mu mat sëkk il faut masaadir yi mu lay wax dangay dem nag seeti ko foofu saraa yooyu boo demee mu gën la koo yaatalal ba nga gën koo xam moo tax ñun amuñu droit ñàkk xam xasaali dañ ko war xam amuñu droit ñàkk xam imaamul yaddaali ndax sañ Tuubaa du ko digal ñooñu ñëpp dañoo war a jàng seen biographie jàng seen jaar-jaar liir seen i téere bu ngeen gisee Cheikh Abdoul yàlla na ko yàlla yokk leer fii ci bibliothèque bi téere yooyu yëpp maraaje yooyu yëpp am na fi fii mboolem maraaje yi ma leen di wax ci tasawuf yi mu tudd fii yi sëñ bi tudd fii benn fi amutoon te moo di xaatimatu tasawuf te loolu ci sunu yoon yi ñuy ànd ak sëñ Basiru di dem Mauritanie dem nañ ci zaawiyat Cheikh Mouhamadul Yadaali ba am nañu ko ba sara nañu ko am na sax ñu ci def seen doctorat am na ñu ci def seen magistère ci téere boobu te na téere boobu seriñ bi nee na ci la sukkandiku ba defar Masaalikul Jinaan bii kon téere yooyu yëpp dañ ko war a jàng xam ko te du téere yu yomb moo tax damay wax ne gars yi léegi xam-xam dafa yomb lool nit day génn rek ñu ne borom xam-xam nga ne mu jaaxal la lool ak ñu xam-xam jafe ñoo xam ne daanaka seen dund gépp ci xam-xam lañ ko jeexal te jàpp ni amuñu xam-xam nga gis ko jàng tuuti rek ñu ne alim jàng ne alim moom yomb na Sénégal lool yomb na fi lool man damay xool rek Ihya Ulumi Diin tàmbali naa di ko jàng di ko liir am naa ci at moo xam ne mënuma ci am ñaari mujallad yi mënuma ko am ba fii mu nekk nii matul ba fii may waxee ak yow waaw bu ma demoon ci xuseyri yi la mu bind ma dem ci imaamul junaydi yi la mu bind ñoom ñëpp ma bëgg leen a xam ñaata at lay jël ci sama dund ñaata at bu fekkee sax dama koy yër bu baax yërëg xam waxuma yër fuyeeti nii rek comme ni gars yi di def nga xam ne yër boo xam ne da ngay yër nii rek boo noppee ne jàng naa ko loolu amul benn njëriñ kon euh, masalikul jinaan téere la boo xam ne noonu mu tudd rek mooy moom yàlla nañu ko yàlla déggloo te lim ciy digle lépp nu am kàttanul mën koo def ci ni nga xam ne ni la ko sëriñ bëggee magkat bu bindee ab lettre daa bëgg ko ko jàng waaye boo ko jàngee ba noppi nga def ci la mu wax loolu la bëgg tan yàlla defal dégg ak topp yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana asalaamaaleykum wa rahmatullah ñi ngi sant nag presse bépp di sant waa defe na waa Touba TV ñu ngi jàllale eh, eh, waa Touba wi daana heure bii daanañ wax ne ñi ngi ànd ak internet yëpp ñoom ak waa Bichri ak eh, ñoom ñëpp ñu ngi njuutu waa Vision mooy njaati gi ni mooy seen njaati gi ndax moo leen di jox son kii bi image bi <laughs> kon dëgg-dëgg moom mooy jëwriñ bi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla yàlla eggale suñu yéene eggale seen yéene ci xilaalu shahr ramadan mubarak yàlla musal nu itam ci wabaa bi musiba mi nga xam ne moo ñëw yàlla musal nu ci e ñaanal yàlla bu baax Cheikh mu Muntaxa yàlla yàggal ko fi lool Cheikh mu Muntaxa yàlla ko fi yàlla yàggal lool Cheikh Mouhamadul Muntaxa xafisahu llahu wa raahu wa ayyadahu wa nasara moom de mi ngi ci di ko waral mi ngi ñuy digal te lim ñuy jigal moo ñu jiitu mi ngi ñuy digal waaye lim ñuy digal bis bu ne moo ñu ci jiitu mi ngi ñuy tere lim ñuy tere kenn du ko ci seen te lim ñuy digal ko tere lépp suñu njëriñ suñu njëriñ moo ci nekk muy ci wàllu diine muy ci wàllu àdduna gis ngeen taxawaay bu rafet bi mu taxaw ba mu nekkee xalifa ba fii may wax yow bis bu ne rek am na jéego bu mu teg boo xamante ne lépp njëriñu ci ci nit ñi lay delluwaat lépp ci nit ñi lay delluwaat e, ba ci épidémie bii nga xam ne moo xew gis ngeen lim ci def alalam def na ko ci wëlbati ko itam ñaata digal ñëpp ñuy jàng alxuraan muy ñaanal boppam di digle ñuy ñaan ci jaaree ci alxuraan daara yeeg jumaa yeeg jàkk yeeg ñépp wëlbatiku itam di digle nañ def li docteur yi wax nañ def li docteur yi di digle raxas seeni loxo ah yi ñuy fab bi ko teg ci kanam yi ñu di ko ci teg wattandiku mbooloo mu bari yooyu yëpp nañ ko docteur yi diglee ñu di ko defee noonu ndax nag docteur nag ñii olamaa yi ñoo yor sixatul arwaax waaye atibaa yi ñoo yor sixatul abdaan li ñuy wax des ko war a def nit koo xam ne boo jàq jàqee wala nga jaaxle léegi ni yóbbu leen ma ci moom te boo eggee lu mu la digal nga def ko bu ne la xoddikul da nga ko war a def al wiqaayatu xayrun min al ilaaj lii nag ngir di topp ndigalal sëriñ bi képp nag moo tax nu di ko wax nu ko ngir leneen nu ko ngir keneen sëriñ bi dong moo tax nu di ko wax ndax moom lu mu ñun dañ koy yees dañuy fas yéene def ko fas yéene itam di ko yeesal saa bu ñu toogee occasion bu ñu am danañ fexe ba jottali ko nit ñi waaye kat jëleewuñ mas wax ji ci kenn yoon wi dafa naqaree waxee lool ah waaw ñoo ngi bëgg am ay ay ay ab diir ci yoon wi nag ñu ngi ciy bëgg a xam tuuti xamuñ ci lu bari sax waaye ñu ngi ci bëgg a xam tuuti la waaw sëriñ bi dong tax nuy wax li ñuy wax waaye leneen taxut ñu di wax wutuñu ci dara itam sëriñ bi rek tax ko kon wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ah, jërëjëf sëñ Moustapha ci waxtaanu am solo gu ñu indiloon tey ci fukki fan ak ñeent ci shahru Ramadan mubaarak dañuy sant bu baax ñi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel waxtaanu fii ci Daaray Kaamil en direct ci Touba Vision di leen sant bu baax ñi nga xam ne ñoo doon bàyyi xel waxtaanu ci YouTube bi di leen sant di leen gërëm ci laaju am solo yi ngeen yónnee am na fay ñetti laaj yu fi wàcc dañuy commencé ci laaj rek mbokk mi day laaj lan lañu ñu may soxna si nga xam ne dafa gis baax njàng alxuraan ak ndax mën naa jàng xasida ci téléphone. ala kulli nit bu setul jigéen bu setul dañ koy tere mu laal ab kaamil xaraam na ci moom dañ koy tere muy jàng alxuraan lu dul la ci imaam Maalik wax illa ayatan wa naxwiha li taawuzi mooy lu mel ni benn aaya ak loo xam ne da koy muslóore waaye jëmmi jàng gi alxuraan xasida yi ak alxuraan xasida yi ci alxuraan la jóge du jaageen xasida yi dañoo nekk de alxuraan nekk ne xasida yi ay turi yàlla ñoo ci ne ay turi yàlla moo nekk ci xasida yi te ci alxuraan lañ ko jëlee lañuy ñuy tere ci alxuraan la ñuy tere ci xasida yi jërëjëf sëñ Moustapha ci tontu bu am solo boobu mbokk mi day laaj mbokk mi day laaj dan mooy njaalo. lan mooy. njaalo njaalo. njaalo mooy ànd ak jigéen joo xam ne du sa soxna. njaalo mooy ànd ak jigéen joo xam ne du sa soxna daganu la nga ànd ak moom ci bànneex te tey ko nga xam ne yaa ko tey sa coobare du luñ la forcé du loo xam ne itam leneen la maanaam même boo man woon def koy njaaloo ndax mandite moom ak mooy yàlla xaraam wala mooy yàlla. jërëjëf sëñ Moustapha ci tont bu am solo boobu dañu ñëw ci laaj bu mujj bi rek mu ne kii day laaj mu ne ki nga xam ne balay tedd day lor bakkan kooku lu mu mën ki nga xam ne balay tedd day lor bakkan. waxal mu ne. balay balay tedd day bakkan. balaa tedd. waaw day lor bakkan. bakkanam lan. comme boucher par exemple man nga man nga man ngaa faat bakkan man ngaa rey ganaar man ngaa rey xar man ngaa rey giléem comme yi maanaam boucher yi ah yi ñu jaay yàpp boucher waaw ah dara nekku ci ci nekk ah yi mala yi ñu di ko jëriñoo waaw ah waaw dara nekku ci boucher la waaw ndax am na ñoo xam ne bu boucher bi rey yàpp di ko jaay ñoom duñ mos yàpp mukk waaw mënuñoo jënd xar mënuñoo jëndal seen bopp ganaar mënuñoo dañuy mën a dem rek peese kon loolu itam boucher bi bu fekkee rey ba ma ngay reyee nañ war a reyee nga xam ne ni war a reyee jëmmi mala bi xam na ko ba bu ko reyee mu dagan mu di ko jaay balaas yi itam yam koy peese loolu itam tegu ci aw yoon mu di ko defee ni ko sariya digle loola dara nekku ci jërëjëf sëñ Moustapha ci tool yu am solo yooyu su naa dañuy fàttali suba ci fukki fan juróom ci sëw Ramadan. waaw mbokk mi doo laaj kii euh, léegi la wàcc mu ne dama doon laaj gaaw a mer lan moo koy saafara. ah gaaw mer. gaaw mer yonent nee na laa taxdab benn waaye dikk na ne ko aw si nii yaa rasulallah mu ne ko laa tax dab mu ne ko dolli ma mu ne ko laa tax dab ba muy ñetti yoon mu ne ko boo bëggee nag mer bu la dalee nga man koo saafara mooy bu la fekkee nga taxaw toogal bu la fekkee nga toog tëddal boo defee yooyu yëpp sottiwul demal nga jàpp boo jàppee ba noppi boo noppee mer ma dem jërëjëf sëñ Moustapha ci dodd yu am solo yooyu xam naa dañuy leen di fàttali suba ci fukki fan ak juróom ci saxu Ramadan ñu koy ànd ak sëñ Mbacke Diop dal ak sëñ Moustapha Diatara ci wasaaya sëriñ bi maanaam dénkaane sëriñ bi juróom-benn yi yi sëñ bi digal ak juróom-benn yi ngi sëñ bi tere